jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb ñu ngi leen di nuyu am kontaan te ak mbégte jàkkaarloowaat ak yéen nu ñu koy defee saa su ne mbokk yi ñu ngi fii ci ministère de la santé fekk fi kenn koo xamante ne mooy Chérif Fall Chérif Fall membre la ci CNG de lutte fii ci dakaar waaye dañu bëgg a waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ni lu yokk làmb la ak lu koy defar tey moo waral ñu déplacé wu ñëw ba fii fekk ko ci bërëb bi muy liggéeyee ñu koy jéggaluwaat bu baax a baax a baax ndax gonay wasaare moom dañoo xaw a lakkale sëñ bi maa lay nuyu sëriñ. maa ngi lay fay Baye Djily di la delloo nuyoo di nuyoo ñëpp ñuy seetaan wasaare làmb di nuyu amateurs yi jaar fa rek nuyu Sénégal nuyu àdduna. di ñaan yàlla si at bu bees bi yàlla def xéwal si àdduna bi yëpp. def jàmm waaye su koy def yàlla na ko tàmbalee Sénégal. rawatina njaareem bi nga xam ne foofu lañu bàyyeekoo. kan mooy Chérif. waaye Chérif at xaana mën naa ne su fekkee ci làmb lañuy wax. ñu yem ci ci làmb ji. ba mu nekkee étudiant la nekkoon président du réseau des étudiants amateurs de lutte. di si yëngu boobu nag li nekkoon yéene ji moo doon. fexe ba sponsor yi xam ne làmb au-delà de de sport bi mu nekk mun nga ci atteindre cible yu bëri en terme de communication loolu moo taxoon ñu créer mouvement boobu di ci liggéey balaa la fin sax gis nga ay école université privée yu mag di jàllale ay sport ci làmb gis nga ay cahier ñuy publier ci biir làmb donc loolu je pense que pari boo xam ne gagné woon nañ ko la bi loolu weesoo tamit dugg nañ ci làmb ndax euh, je pense nekk nañ ci promoteur bokk ci bureau des amateurs pas bureau des amateurs mais di ànd ak ñi nga xam ne ñooy yëngal làmb ji ci wàllum amateur yi muy le président du Jandjeko ñu koy nuyu au passage bu ñu jógee ci loolu tëgg ay làmb nag tëgg ay làmb yu mag tëgg nañ benn tournoi régional de lutte avec frappe lutte avec frappe je pense que tournoi régional boobu sax bokkoon nañ ci li ñu li ñu gën a impliqué parce que dañ ko bëggoon a vulgariser au niveau national pour que ñëpp wu ci permettre mbër yi nga xam ne du ñu ñu ñu mën a donc tegoon nañ ci ñaar fukki nag teg nañ njaareem juróomi nag je pense que beach wrestling tamit làmb yi ñuy def si boori géej bi mu ñëwee le président Alioune Sarr wóolu woon ñu dénkuñu ko tamit je pense que liggéeyoon nañ ci liggéey bu ama am solo ba tey bari na champion yooyu dégg tey je pense que jaar nañ foofu Zarko mos ko jël su ma ne laa góor a foofu la daan yëngoo su ma ne laa selemele bari na fa bari na bari na du ma ko limee sax damay juum mais bari na ay mbër yoo xam ne jaar nañ foofu su wàllu bëri door tamit tëgg nañ fi combat yu bëri Cheikh Ñang Noir Cheikh Ñang aatu euh, ñoo ko tëgg Noiro Noiro aatu ñoo ko tëgg Cheikh Ñang Eumeu Sène junior la woon Noiro atu tëggaat nañ ay yeneen yeneen combat yoo xam ne daal ñu ngi ko doon def si wàllu wàllu làmb ji donc làmb moom sañ nañ ci wax yaakaar naa. Mm-hmm. sañ nga ci wax mais ci domaine promoteur boobu nga nekkoon doon promoteur de lutte tëgg làmb événement yi mel noonu nga tëgg ñu jékki-jékki rek gisatuñ la ci làmb lu waral loolu. waaw gëjuma ci trop c'est vrai que toog naa benn benn un an xuma deux ans yoo xam ne organiser wu ma làmb loolu nag dafay laaj bu ñuy dox ba si yàgg mbir mi am ay xat-xat yu ndaw nga toog réfléchiraat tëggaat mbir mi ba mën ko jaay sponsor yi parce que encore une fois làmb moom su amul sponsor xaw ma Dakar de mais dans les régions day am jafe-jafe donc doon nañ def ay effort pour di yóbbu ay sponsor yu bëri si région yi donc bu yàlla defee ñu dem benn instant gis sponsor yi di retiré wu ñu xaw a dal tuuti rek jéem a tëggaat mbir mi créer innovation pour mën ko jaayaat ces ces sponsors là et puis dellu si parce que duñ ko bàyyi moom mooy suñu passion moom la ñu bëgg et je pense que ren am nañ programme bu ñu war a bu ñu war a dérouler aussi bien à Diourbel mais ci yenn région yi tamit am na yu ñu fa war a yëngal ci làmb incha allah. Mhm. Chérif lan nga jàpp ni moo tax sponsors yi retiré wu ci làmb ci communication bi la wala ci mbëri la. waaw ku nekk am na nga si sa wàll. bugguma tooñ mais làmb raar na ñu ciy def ay communication yu jaar yoon tooñu ma kenn je pense que sànniwuma xeer kenn tamit mais yaakaar naa ni claf boobu ñu fi defoon suñu papa Bécaye mbay porté ko gis nga communication bu positive boobu waa waa 2S defoon je pense que bokkoon na ci lu taal làmb ji mais léegi malheureusement ku nekk ngiy wax nu la neex ngay waxee je pense que communication bi tamit parfois day heurté da ngay gis ñii di filmer wala ñii di teg je je personne lu gën a ñaaw ci làmb ji la ñuy wane. dañuy wane koo xam ne ay cëram a ngi ci biti wala lu mel ne néew ñu enveloppe ko teg ko. je pense que genre yooyu ñuy wane mun na mun na mun na dawloo ñenn yenn entreprise yi. du ma ne sax loolu mooy cause principale bi parce que en réalité entreprise moom li ko ñor rek mooy investissement bi mu def ci làmb bi mu am rentabilité. donc làmb am na problème mu indicateur bu ñuy natte sponsor yi li ñu dugal ci làmb est-ce que am na retour sur investissement. Mm. je pense que loolu nag ma ciy félicité buzz parce que pay-per-view bu mu indi lu ama am solo la. dina permettre par exemple làmb su jeexatee nga ne jaay naa nombre de cartes yi nga xam ne jaar nañ ci pay-per-view bu seetaan xam nga loolu nattukaay bu leer la boo xam ne booy dem entreprise da ngay naan ko j'ai vendu de milliers de cartes yoo xam ne làmb ji dañuy seetaan moo tax ñu jaar ci sa réseau seetaan làmb ji ainsi de je pense que mbëri tamit am nañ ci am nañ ci wàll. parce que làmb boo gisee ñoom Tyson ak ñoom Moustapha Gueye ñoo tax ñun ñu bëgg làmb ñun ñu gën a féete gone mais ñoom bi ñu ñëw dañu créer innovation Tyson daa ñëw dugal bus Tyson daa ñëw moto bi jiitu ainsi de donc mbëri léegi tamit jot na ñuy créer innovation parce que yàgg naa ko wax ni que l'innovation est la sève nourricière de l'événementiel te làmb événementiel la làmb léegi il faut nit ñi xam ne. weesu na bëre damay wax chaque fois sax bu ñuy invité ay émission wala ñuy def làmb dañuy gis nit rek parce que seetaan na Double Less ak je sais pas mais xam bëre ak xam làmb wute na parce que làmb c'est un tout droit dafa dugg parce que dafa am ay contrat sponsoring dafa dugg communication dafa dugg donc il faut des professionnels pour ñu gérer loolu je pense que avancement làmb ji moo xawoon raw tuuti organisation bi organisation bi nag bari na ay pàcc ku si nekk am nga ci sa wàll au niveau des écuries yi nga xam ne ñoom ñooy base bi je pense que manqué na professionnalisme qu'on le veuille pas dégg naa sax keroog ku nekk si écurie di di sànni xeer CNG ne non bari na ay licenciés te booy du ñu bëre mais je veux dire que écurie association de droit privé la libre administration moom moo fa am soo amee mbër yoo xam ne dañoo jot a bëre nga wutal leen licence. ñi nga xam ne jotuñu bëre da ngay gis xale bu ndaw buy jàng bëre ñu wutal ko licence cest à sax présenté ko je pense que du bénéfice u écurie bi mënoon nañ ko jël formé ko bàyyi ko tamit muy def leneen lu dul làmb parce que jublu ci làmb kese kese bu wër ba ci euh, yaakaati sa àdduna bu làmb yàqoo sa àdduna mun naa yàqoo donc écurie yi tamit nañ nañ organiser waat jéem a professionnaliser affaire bi jéem a dem vers ay ay financement jéem a fexe ba nan la ñuy defee formation ñi nga xam ne am nañ ci formation ñu wutal leen tamit ñu defal leen renforcement de capacité au delà de ça tamit ñu leen di wutal ay yenn instituts financiers yi leen mën a accompagner pour ñu développer seen activité bañ a yem ci sport bi. sport business ni ko ta euh, Tyson doon waxee sport entreprise wala sport étude yëpp ñu dugal ko ci écurie yi jox ko ay nit ñoo xam ne war nañ ko mun yor. parce que généralement écurie yi lan la ñuy def dañuy gis net nit ku nekk ci koñ bi yàlla def mu am tuuti moyo ñu ñëw ne ko yaay suñu président xam loolu ba xam l'affaire l'intéresse ou pas donc kook li muy def rek mooy participer financièrement donc war nañ koy jox ay nit ñoo xam ne. xam nañ déjà lan mooy association xam nañ fu ñuy jaar ba développer association bi xam na fu ñuy jaar ba amee xaalis bu ñu ci association bi mais xam na tamit nan la ñuy la ressource humaine bi nga xam ne moo nekk ci association bi donc c'est tout mais yaakaar naa ne bu ñu loxo rek mun nañ ko mun nañ ko suqaliwaat parce que comme garab la tamit day am benn saison day ruus mais day am beneen saison bu soobee yàlla dina sëxaat parce que lamb moom la Sénégalais bëgg en réalité. Mm. Mhm. lamb la Sénégalais bëgg en réalité mu am loo xamante ni dañ ko bëgg a xool taxaw seetlu ko ci CNG de lutte bi njariñam ci làmb lan la CNG. waaw loolu nag bu ma ko naree waaw du ñuy juge fii parce que dégg naa suñu papa Xarim Samb di wax ne bu muy ñëw le président Alioune Sarr ay benn journée wala ñaari journée moo daan moo daan am si làmb ji mais léegi je pense que. dimanche yi jeexoon nañ samedi yi jeex ba ñu commencé di jël mercredi yi di ci tëgg làmb au la de ça assainir na milieu de la lutte tu sais làmb bu amul bu amul ay ay ay normes yu dëgër damay wax ne millier sax du dox tànk amul ay règles yu dëgër yu taxaw règles yooyu du dëgër tànk application ba strictul maanaam ñu jaarale ko ci yoon application bi du mën a strict tant que amul ñi koy doxal amuñu xàjj ak seen je pense que CNG yàlla may na leen si loolu règle bi daloon ci kaw Tyson dal na fi ci kaw Yaaw Jaal règle bi daloon ci kaw Boy daloon na fi ci kaw Ama Baldé je pense que assainir nañ milieu bi. Ama bi mu fiy ñëw di indi jaan ma koy nuyu je c'est pas pour le critiquer mais juste pour donner un exemple bi muy ñëw di indi jaan ñu tere ko mu tël la ko ci fekk moo tax indeetu ko. guy gi da daan jat ñetti yoon ñu bëgg ko def tendance. loolu CNG fexe nañ ba loolu amatu fa. ba ci digg bi mbër signalé. arrêté combat bi xam nga loolu daan def làmb ji guddee bu ñu paree mu am ay ay yenn affaire am ay histoire ñu ne làmb ji ñooy créer agression je pense que CNG daal assainir na milieu bi te teg na benn cadre boo xam ne permettre na tey promo promoteurs yi mun a professionnaliser seen seen business. parce que làmb nga doon gis benn business boo xam ne da nga gis un promoteur bu mënul bind mënul lire. jox mbër bu mënul bind mënul lire. pour compte bu jox ma avance manager bu mënul bind mënul liir jox pour compte mbër boo xam ne mënul bind mënul liir xam foofu réeroo dafa yomb promoteur mënul bind mënul liir jox avance manager boo xam ne mënul bind mënul liir pour compte mbër boo xam ne mënul bind mënul liir contrat am foofu loolu réeroo dafa yomb je pense que yooyu yëpp CNG facilité na CNG teg na cadre bi daanoon ak dajul suuf CNG tout n'est pas rose au CNG il y a des manquements yoo xam ne je sais que ñoom ñi ngi ciy liggéey pour améliorer point yooyu mais je li ñu indi si làmb moom bu fekkoon ne moom la ñuy waxtaanee rek je pense que fii moom duñ si jógee te émission bi fa lay fa lay fa lay yem daal. mbër mi am licence nekk ci làmb ndogal dab ko ci mu am ci jafe-jafe ci yaramam ku ci mel ni Zil de Junior ñu koy ñaanal au yàlla fëgg boppam ba mu jóg. làmb wala CNG ban taxawaay la ci waroon am ci yeneen mbër yi nga xamante ni ñu ngi ci làmb te loolu dalu leen te ndogal moom ku ne lay dal. waa loolu moom je pense que li may njëkk a def mooy ñaanal ko ndaw la ku am jàmbaar parce que gisoon nañ ko ni mu daan bëre ak ni mu daan toppe ci ginnaaw am euh, Ama Balde di ci def fulla ak fayda wane si tamit Jules bu bëri woon mu raf bu neex bu feccoon mu neex mais li may wax rek mooy encore une fois professionnalisme. xam nga mbër yi am nañu assurance par rapport ak seen activité. bu ñuy def seen activité am na assurance bu leen couvrir mais rien ne les empêche ñu dem dugg ci mutuelle boo xam ne bu ñu amee jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram mutuelle bi na substitué wu wala tey ñu demal seen bopp jël assurance santé. je pense que coût yi léegi ak jàppandalu nguur gi je pense que yombatoon trop ci loolu maintenant CNG lu ma la mën a yëgal mooy tamit ñoom ñi ngi def social le CNG je pense que bi ñu fi toogee ba léegi bari naa ay mbër yoo xam ne xëy na kat duñ ko communiquer mais parce que société bi moo bëggul ngay def ci nit lu baax ba pare génn di ko wax mais bari na jafe-jafe ay mbër yu fi am jafe-jafe CNG dugal ci seen loxo man ma yëg ko wala kenn yëg ko donc war nañu fexe daal ba xool jafe-jafe yooyu di am à travers la CMU surtout couverture maladie universelle que mbër yooyu ñu mën a dem wuti carte CMU ça coûte di du tout bëgguma def publicité CMU mais lenn ngay natt nguur gi nattal la lenn bu ko defee boo amee jafe-jafe ñu mën a jël en charge que loolu tamit il faut que écurie porter ce combala là à la limite ñu ne mbër bi balaa ngaa nangoo am licence il faut nga dagg sa carte CMU loolu dina la permettre boo indi sa certificat d'aptitude nga fayalee sa carte CMU loolu je vais suggérer ça suggérer ça au nga xam ne à la souscription ngay amee carte CMU lool dina teggi dina tegg gàllankoor yu bëri parce que ku ne xam na ni dëkk bi xëy na parfois mu metti si ñenn ñi boo demee hôpital facture yi mun nga am jafe-jafe mais bu fekkoon nga am. carte couverture maladie universelle je pense que mun na la gérer loolu nag benn la fi mais assurance euh, santé am na fi leneen ak leneen am na fi donc au niveau des écuries nañu organiser CNG tamit teg ci loxo am benn budget social boo xam ne dañuy wax ñëpp naka lay demee kan moo si éligible ak kan moo si éligible comme ça dinañ régler problème yooyu quoi encore une fois Jules ak Mamadou Diop l'international bi nga xam ne saa yu bëri woon Sénégal jommi danaan dugg fu ne suufu tànk yi fu ne la daan dugg yàlla teg ko nattu ñu ngi koy ñaanal nattu boobu teg yàlla teg ko mu tegi ko si si jàmm te euh, je pense que loolu rek moo si des que nit ñi joxante la ko professionnaliser li ñuy def parce que tànk que ñi ngi ci amateurisme tant que ñi ngi ci foog ne bëre la rek non duñu duñu duñu si génn bëre mënoon nañ ñi folo mais léegi business la comme ni ko taay waxee cest à que mbir moo da xam ne dañ la ciy fay cent cinquante millions mon cher nekkatul loo xam ne ay ay ay nit ñu mënu ko gérer ñoo koy gérer il faut nga jox ay expert ñoo xam ne xam nañ ko pour ñu yor ko. Mhm. Serif ñu bëgg a dugg si ci làmb rawatina bëre door bi nga xamante ni dégg nga ci grand contre petit ndax daaw saison bi doon na loo xamante ni ñu ci baree ci mbër def nañ année blanche waaye ren diggante daaw ak ren doon na loo xamante ni lu lu lu yéeme la ndax ponkal wala ñi naan tenoor ci làmb ba léegi dégg guñu combat ku ci mel ni Modou Lo jàpp nañ ko dat waaye leeragul ba tey mu ngi jeexi jaax diggante Boy ñaa ak Balla Gaye 2 demoon nañ ba ci digg bi ñu ne làmb jooju taxaw na waaye malheureusement gis ngeen fi mujjee Balla gay nee na du bëreeg Boy Niang loolu bokk na ci liy defar làmb ak grand contre petit bi noo gisee. waaw rafetlu ko rek man ne grand contre petit bi ma ko déggee dama tàccu parce que petit nag xëy na sax ci njëkk nit ñi si làmb la mais bu ñu xoolee ñi ñuy wax. petit yi li ñuy mobiliser ci làmb li ñuy wax petit yi li ñuy def en terme d'innovation je pense que xale daal bu la dabee ci làmb ba ñeme la tàllal la loxoom te def jaloore bu permettre nga war ko mun jël je pense que mun nañ ko jël et puis day ubbi làmb ji quoi day ubbi làmb ji mun a permettre innovation yeneen jël loolu moom man je pense que lu mooy encourager la maintenant làmb na calcul la xëy na am na ñoo xam ne bari na ay si nekk. parfois dinañ citer sa aspect mystique boo xam ne kenn maîtriser wu ko mbër mi laajte nañu ne ko diw pare nga wala daf laa pareel doog laa jël ainsi de suite donc comme ci làmb nga ne xam nga yu ci nekk am na ñu naan bëggumaa jël diw fekk ne dañoo pareegul bu nu noppee jël ko donc loolu daal ñi ngi koy rafetlu di ñaan mag ñi ñi nga xam ñoo fi jiitu xale yi ñu tàllal leen loxo ubbi làmb ji ubbi làmb ji une fois ñu ubbi ko rek yeneen combat yu neex dina ñëw xam nga xam nga Modou Lo Ama loolu rek communication bi ci war a am bu ci def bu ci bu ci amee je pense que loolu mun na taalaat làmb ji pour de bon balagay Gaye Boy Niang Balla Gaye Balla bu bu Balla bu duggoon sax je sais pas fu mu dugg yàlla def si xorom Boy Niang si je pense que artiste la à la limite donc yooyu dat noonu je pense man maa ngi ñaan mu taxaw pour que sénégalais yi ak amateuru làmb yi régalé wu ci ci suñu culture déjà c'est c'est c'est c'est des yoo xam ne làmb munu ko ñàkk làmb daf ko soxla daal di ñaan yàlla mu taxaw rek si jàmm am sponsor nag yu gunge promoteur yi parce que lamb yu xaw a diis la. Mm-hmm. démb euh, stade Diom Iba Mar association des promoteurs ñoo fa dëggoon tuddee euh, drapeau Matar Bala ministre des nga gis euh, Tapha Tine wàcc rëg-rëg daw dëkk ko ba Tapha Tine mer mu jaral ko mu génn làmb ci. waaw c'est-à-dire mooy li ma la wax rek xale daal bu màggee ci làmb ba dab la dëkk la je pense que bàyyi ko xel damay jaar nag ci sa question bi remercier. félicité sax laay wax le ministre des sports ci li mu def ci làmb yëpp parce que dafa ñëw li mu njëkk def mooy complexe bi amoon ci nit ku nit ku yor nguur wala nit ku jàng ak làmb la njëkk a jël teg fale ne la man làmb mooy sama sport dañ koy jiñ sax ministre làmb ji je pense que loolu lu am solo la donc association des promoteurs suñ fi jaaree sargal ko def nañ lu rafet def nañ lu baax mooy nuyu suñu mag Pape Abdou Fall siyaare ko parce que sama magu taalibe la ñaanal ñoom tamit ren sponsor yi ñëw fëgg seen bunt yi ñu mën a def seen journée yi loolu daal mooy wax ji fi mu toll nii maintenant mbër na ku mu neex dëkk ku mu neex dëkk bàaj seeraas gis nga ko fii ba muy dëkk Gris Bordeaux loolu yàgg na ci làmb loolu je pense que mbër sax waru ci mer Yékini dem daan na bi mu fi toogee amul combat daan na dëkkaate ba ci kaw tribune yi xam nga loolu loolu loolu dafay neexal làmb donc euh, il faut il faut que mag ñi xam ne nag loolu ci jeu bi la bokk parce que ñoom ñëpp daan nañ tàllal loxo seen ay seen ñi nga xam ne ñoo leen jiitu ci làmb donc ba baabooy Gris Bordeaux di ko dëkk dëkk bu mett gis nga loolu gis nga loolu te mujj na ñoo bëree baabooy Gris Bordeaux donc loolu loolu daal mooy làmb làmb dëkkaate dafa bokk ci làmb quoi uh-huh. mbër yu mag yi uh-huh. ban position lañu war a am ci làmb ak seen taxawaay ak ban image lañ war a wane ndax ñu ci bari nee nañ sponsor yi li tax ñu daw wala ñi tax ñu ci làmb da ngay fay mbër cachet mu signé contrat jour seen jour face to face am kii naan da sëriñ bi nee na bu ma ñëw dañ maa yebal fii ak damaa tardé te làmb kenn du ñëw di tardé parce que règlement wu CNG mooy une minute boo tardé dix mille la dem na ba mbër yi dañuy sauver seen xaalis di daw ngir loolu ban taxawaay lañ war a am bu sponsor yi ñëwee ban image lañu war a wane ci blouson bi ñuy sol wala image bi ñu war a wane moom mbër. je pense que loolu nag bu ñu waxante dëgg rek wàññeeku na bu baax a baax a baax parce que mbër yu mag yi en général ñi ngi wane benn professionalisme parce que au la des managers yi nga xam ñoo leen di signer am na ay agent yu ànd ak ñoom di leen xelal yaakaar naa au la même combat yi. gis naa leen ñuy def ay activités yoo xam ne vraiment day joxe beneen image yu mbër loolu je pense que rafetlu naa ko mais ñu xam ne rek loolu seen métier la xam nga kenn du toog si garab ba ngoon nga gor ko suba bu naaj bi génnaatee mun nga am jafe-jafe yaakaar naa ni mbër yi moom fi ñu toll nii xam nañ li làmb ji def ci ñoom ak ñoom li ñu war a def ci làmb encore une fois ñu invité leen ñu gën a ñu gën a professionnaliser li ñuy def fexe ba fexe ba. kuy jam làmb daal du jaar si ñoom. parce que bu la làmb teralee nag war nga delloo làmb njukkal. je pense que yàggul dara yàggul dara gisoon nañ fay mbër yoo xam ne changement bi làmb def ci seen life je pense que loolu lu positif la. Sérif ñu lay xaar ci làmb ngir nga ñëwaat boo ñëwee ñaari association de promoteur ñoo am Sérif ci ban lay bokk. man nag mosuma jóg si làmb xam nga man man awma beneen fond dul làmb. man soo ma bëggee gis soit fi may liggéey la wala fa ñuy defee làmb. loolu rek laa xam loolu laa bëgg. sans promoteur bi ñëw tëgg làmb moo tax may wax. waaw maintenant promoteur. je pense que man yaakaar naa du may général par rapport ak sama life li ma ci décidé mooy lépp luy taxale man du ma si dugg lépp luy boole boo ma seetee di nga ma ci gis donc ñaari association promoteur su amee tamit. yaakaar naa ñoom ñoo bokk ndey ñoom ñoo bokk bàyyi. je pense que tuuti naa trop sax pour pour waxal leen parce que que muy Pape Abdou Fall mooy jiite benn bi defe naa Bamba mooy jiite benn bi. Bamba tamit suñu frère la ñu koy nuyu au passage je pense que daal man suma ma sañoon sax ñoom ñu joxante loxo ànd def benn association bu dëgër. bu porté revendication yi lamb yëpp di lamb di di di di di laaj. pour que ñu mën a développer affaire bi yaaxul dara sax ku si nekk nekk sa koñ parce que ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ. malgré difficulté yi ci am ci làmb ñuy góorgóorlu di tëgg mais daal euh, man li gënoon rafet sax ñu ànd ñoom xàccandoo dóorandoo man nag li may def soxlawul licence parce que dañ daan tëgg làmb si booru géej ñu koy wax beach wrestling te dama lay fàttali ne beach wrestling moom la Sénégal a a am champion du monde mooy Isabelle Sambou def nañ ci def nañ ci six xaw ma sept éditions. ànd nañ ci ak partenaire bu si nekk. maintenant dans les régions tamit je pense que Diourbel moom amoon nañ fa licence ñu ngi. Ah, ju ma ñëwee daal je pense dinaa concentré wu ci liggéey bi may def wax lu rafet def lu rafet woo ñëpp ci wax lu rafet def lu rafet après ñu jéem a développer game bi quoi ba ñu dugg ci ay xaaj xaajaloo wala farfarloo wala wala wàlli bañe quoi man je pense nekkuma ci cadre boobu. Chérif démb moo nekkoon le stade Diom Iba Mar ñu ne tëj nañ ko képp kuy tëggati làmb da ngay dem arène nationale noo ko gisee. waaw mais loolu nag cohérence la quoi parce que ñoo fi nekkoon di jooy làmb di jooy arène nationale ne serait-ce pour delloo njukkal ki nga xam ne jël na 32 milliards def ci foofu dañu war a dem foofu bëri fa man loolu je suis parfaitement d'accord nañu dem arène nationale ñu bëree ji fa maintenant arène nationale bu demee ba ñu fal ki nga xam ne moo fa war a toog. war na am nag nu ñu accompagner promoteurs yi parce que promoteurs yi combat yi ñu dayoo promoteurs yemu ñu dayoo donc promoteur bi fay 100 millions mënul yem ay charge yu muy jël ak promoteur bi nga xam ne ay combat 1 million la tëgg wala yooyu nañu gunge promoteur yu ndaw yi yombalal leen yenn mbir yi en tout cas location bi wala frais yi ñu war a dekk foofu ñu indexé ko ci ñu indexé ko ci Euh, kii bi ñu fay cachet bi ñu fay wala dayoo événement bi lamb simple yi fay am tamit ñu xam ne lamb simple xëy na recette bi tollagul noonu ñu jéem a fexe daal ba ku si nekk gis ci sa bopp mais arène nationale moom il faut ñu dem fa bëri ji maintenant gars yi buñ ci yem maire yi nañ defar ay arène municipale je pense que arène municipale yàgg nañ ko dégg suñu papa suñuy wax ci lamb maire nañu jël ay yenn espace waxuma rek Dakar mais dans les régions je pense que jot na nag ñu wut ay arènes yoo xam ne nit ñi fa la ñuy bëree wala tamit ñu disponibiliser ay suuf yoo xam ne mun na am partenariat public privé bu permettre ñu tabax arène di ko louer pendant benn moment après ñu delloo ko ñi nga xam ne ñoom ñoo yor gox yeeg goxaat je pense que loolu tamit ay piste de réflexion la yoo xam ne ñu ngi siy invité ñëpp ñi nga xam ne ñoom nekk si euh, ñoom ñoo yor gox yeeg goxaat yi mais ñoom ñoo ŋànk sport bi tamit sur le plan national et international. Chérif doo gan ci làmb ku ne xam na ni. macha allah yàgg nga ci làmb et bokk nga ci làmb combat bu doy ni mu Lo Ama Baldé xaj na arène nationale. yaakaar naa ko ah yaakaar naa xaj na ko xaj na fa parce que seetaan naa fa booy ñaa parce que booy wax tamit da ngay teg sa loxo. seetaan naa fa booy ñaar Lac de Guiers xëy na dayoo yi noonu mais booy ñaa pour nga li mu dugal arène nationale di dugal ko fa bu boobaa dina dina xaw a jafe seetaan naa Reug Reug Modou te depuis ba mu ubbee ba léegi combat bu amee damay ñëw seetaan pour xool fan lay yóbbu. fan lay yóbbu arène nationale en terme de nan lañ koy remplir xam nga parfois sax ñu ne mbër bu mag am mbër yu ndaw yoo xam ne bu ñu jógee da foog ne mbër mu ndaw a jóg mbër mu mag a jóg de ndax li ñuy mobiliser donc je pense que ne serait-ce que pour pour xool capacité bi. jaadu ñu def ko foofu donc nañu nañu nañu nañu dem à l'arène nationale et puis xool. mesures d'accompagnement yi nga xam ne en termes sécuritaires moom la état bi di mettre en place pour que nit ñi mën fa def def fa combat bu toll noonu je pense que je pense que xaj na fa man yaakaar naa ko mun naa juum nag mais man daal li ma gisee yaakaar naa ni combat bu toll noonu xaj na si arène nationale bi parce que gisuguma combat boo xam ne arène bi fot na daal te loolu dafa neex ci làmb sax en terme de de de de rendu yéen ñi ay professionnel professionnel wu euh, audiovisuel ngeen ngeen en terme de rendu loolu li muy li muy indi li muy indi ci. Euh, si communication stade bi fees del coloré waykat yi toog mbër mbëri jaag yi mais loolu dafa rafet loolu dafa rafet mais gëj nañ nama nañ ko dañuy daan dem Demba Diop mu am benn ligne de séparation mel ni Iran Irak dañ daan dem Léopold Senghor Léopold Sédar Senghor feesalaguñ ko ba léegi nii. Giri Bordeaux Baboy moo fi tane woon te man bokkoon naa ci équipe boobu étudiant laa woon. ndeysaan léegi Nicolas ñu ngi koy ñaanal jàmm ak tawféex tamit di ko ñaanal nattu yu mu nekk yàlla ko si yàlla teggi. loolu je pense que boobu étudiant lañu woon ah mu tëgg baabooy euh, Gris Bordeaux jox ñu responsabilité bu toll ni ticket yi sama nekk la doon fanaan boobu benn partenaire la àndoon boo xam ne moom moo jëndoon làmb ji ñu koy maye. làmb jooju noonu boo jëndoon pisu tigo wala nga jënd nga chargé euh, maa ngi sax publicité waaye comme defoon nañ ko ci làmb rek nañ leen delloo njukkal. je pense que boo jëndoon dara ci loolu rek dañ lay may ticket loolu moo taxoon sax làmb ji meloon noonu. mais euh, je pense que il faut ñu dem arène nationale nag. delloo le président Macky Sall mi nga xam ne il a investi plus de 32 milliards si si boobu ñu duy ko ba mu fees ñëpp si lui se toog en place ñu accompagne ñu sur le plan sécuritaire après ñu def benn fête boo xam ne après loolu dañ koy jël jaayat làmb ji. Mhm, je pense que. Chérif Atkana Fall ñu ngi lay jaajëf. jaajëf Baye Djili encore une fois di leen remercier di leen féliciter ci liggéey bu rafet bi ngeen di def Wassare day jël na place am ci làmb ji encore une fois dara nekk fi lu dul gëm. li ngeen di def su ngeen ko gëmee ay ndaw ngeen tegu ci yoon bi liggéey am ngeen place ci game bi te yàlla def na xale mooy innové mag xëy na dem na benn instant di ko war mooy conseiller xale yi ñu jëf encore une fois comme am ngeen chance seen équipe bi yëpp équipe bu xale leen yàlla yàlla defal leen ndam. defal leen sutura li ngeen di def te. Euh, wasaare làmb daal dem bokk ci dem ba bokk ci piliers yi ñi nga xam ne ñoo téye làmb donc ñaanal nañu leen loolu et puis sëñ Basirou di suñu rakk di suñu xarit mu ngi may sànni sax xeer naan ma promoteur bu perte bi. mais ñun ñaan ñoo doon dëggandoo làmb ji <laughs> su ma perte moom perte la. perte donc moom perte ko dugal ci audiovisuel. yàlla bu mu perte ci audiovisuel bi mu am talent trop nag. bu defee voix nga jooy. et je pense que loolu su amee. dañ leen war a pousse may leen seen chance pour que ñoom tamit ñu créer hmm. tant que création amul innovation amul làmb ji dina tagatémbe hmm. merci beaucoup jii Djily merci beaucoup Wassare Lamb su ma juumee nag man dama xamul te bari wax <laughs> ngeen jégal ma ko merci beaucoup mes chers hmm. jaa ngeen jëf jërëjëf Chérif Fall kontaan nañ bu baax a baax a baax ci dalal gi waxtaan ci lépp loo xamante ni dafay yokk làmb na wolof daf ne ku yokkul rek yaa wàññi te bu ñëwee seet si ko fii ngir waxtaan lu jëmale kanam làmb mënuñu lu dul di leen jaajëfal suñu mbokk internet di képp kuy seetaan wasaare làmb ñu ngi lay jëfal am kontaante ak mbégte di janoo ak comme ni ñu koy defee ñu ngi leen di tàggoo tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo ba ëllëg ci xew-xewu làmb ak beneen daanaan jërë ngeen jëf.